man dee ne jógul président élevé di tool bi tey li ma ci gis di ma toog a ndekk guma sax tracteur yi ñëw commencé ma ne lii lan la te bayoon nañu ko ba ma yaakaar ne balaa dara xewati ah, liggéey ah, kii ñu ate ko jotuñu kayit jotuñu dara jotuñu kayit jotuñu dara ñu tebateb ñëw ne nañu ko bay ma loolu nag du fi am du fi am day lu ñu mën a bu bu ñu yeegul suñu kaw duñ duñ leen bay duñu leen bay tey duñu leen bay bu nguur bi ñëwee nag wax ne bay leen ñu xam waaye loolu fekk loolu amul ñun ah, duñu bay duñu bay tey duñu bay ëllëg muusa Ba Moussa Ba moo leen yebal te man dee ne jógul d'accord ci loolu gis nga lii rek moo fi des suñu nag yi ñu ngi jolof kuule bi nawet fii la nawet te nag yi ba bu fekkee ne loolu am na nag yi nekk jolof bu ñu ñibsee xamuñu fu ñu nekk du ñu dugg ci biir tool yi tool yi ah, lii rek moo fi des kon nañu dimbale bayal ñu lii nañu dimbale bayal ñu lii lii lañu yaakaar amuñu benn pexe téeméeri hectare ak juróom fukk waaw loolu nag ñun amatuñu daara gis nga tool yi dafa ñëw bésis ci tool yi béy ala bi loolu nag mënuñu ko bay tey mënuñu ko bay ëllëg d'accord ñu ci tey d'accord ñu ci ëllëg waa dëkk bi yëpp kenn d'accordul tubaab bi tubaab bi la jiital euh, indi tracteur yi ndax bu nekkoon Moussa Ba ak Moussa Ba kese ñemewu ko ñemewu ko ndax ñun fii la ñu juddoo mu ñu fi jóg Moussa Ba dekku fi mu ngi dëkk ba ginnaaw Kaolack yoo bu ko yoon doxee it yëguñu ko yoon joxewu ko tey joxewu ko ëllëg bu ko yoon joxe woon ñu yëg ko mbir mi mu ngi ci yoon fekk mu ngi ci yoon nag ñun mënuñu bay te yoon joxuñu ko joxuñu ñii joxul ñii waaw kon nag nañu toog ba ñu atte ko li ma wax Macky Sall ah, lii la yaakaar Macky Sall nañu dimbale ñun sami kat lañu béykat lañu amuñu pexe te moom la yaakaar amuñu benn pexe lii rek mooy suñu pexe suuf bi ñu ci sami di béy bu ñu ko jëlee nag mënatuñu béy mënatuñu sami loolu nag fan la jublu Macky Sall nañu dimbale moom la ñu yaakaar duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg waaw duñu ko nangu de dañu arrêté seen liggéey ba ñu jot kayit mbaa ñu jot kayit waaye bu ñu fekkee ne loolu lañu ñu yaakaar duñu leen bay de duñu leen bay tey duñu leen bay ëllëg man de ne joogul président éleveur maa ko wax. daan sar damaa xëy a xëy rek ne tracteurs yi ñu ngi tracteurs daq a atat day jóg leen fii lu ma foog ne su fekkee lii la ñu yaakaar nañu wax Macky Sall ne nañu dimbale tigi lii la ñu yaakaar tracteurs yi wala su fekkee ne nag tiitul tey tey nu rëy fii wul euh, mu téeméeri nag xam nga loolu baaxul seetal rek ndoofaan suñu nag yi mu ngi fii yëpp te ala bala bugu yi ñu koy waxee rek xëy gu neex woo ma ne ah tat yi ñëw naa ne fu ñu gët yi ne ni dàq ñu ma ma ma may sama ñëw fekk ñu ñu nekk fii di àll bi di di talteer ñu lay arrêté leen arrêté leen arrêté leen talteer yi ñun ñii ñoo ko wax dégg nga Macky Sall dimbale ci àll bi Moussa Ba bàyyi àll bi dégg nga Moussa Ba bàyyi àll bi. Sall mooy yegg na ko yegg na ko mu ne amul oto bu war a indi kii kii bi Sall mu amul oto dàq mu dem su bañee ah lu lu gis rek moo ko def boppam